yàgg ñaar fukk moom mat na ko damay bañ li ma wóor moom 93 ba léegi ñu ngi ànd dañ xool na 93 ba léegi ñaataat imaam Youssouf yi ba ma xamoon ca biir néegam moo nekkaat nii maag Sidi Ahmed si jëm sëñ Sidi Ahmed ku baax la ku dal la ku teey la yàlla dënku ko xam-xam mu di ko nëbb lu man man day moo kii oustaz Sidi Ahmed bii féete nañ ma imaam yuusu mooy sama ndeyjoor moom mooy sama càmm ndax xam nañ ne man daanaka du ku may nëbbatu sax da ngay dem ci kër ga toog man boo ma bëggee nëbbatu bul dem fet demal ci kër ga rek nga toog mën nga fa yàgg ay fani fani fani fan du ma la fa fekk loolu laa ci jublu fu mu mën a doon nag ci kër yi mën nga dem ay fan doo ma fekk ndax duma ma toog waaye boo gisee li ma yor tardewul taxawul ñoom ñaar la muy imaam Yuusuf mii ak ustaas Sidi bu jiitee kii waxtaan gan duñ am yëg ne boroom xam-xam la imaam Yuusuf rocceeku ca gannaaw puus ko ca kanam bu waxtaan jotee ustaas Sidi Ahmed yootu ko ne ko waxal te nekkuma fa loolu xàmme ak teey ak dal moo ko mën a may maa ngi leen koy seedeel nag yéen ñi nga xam ne yéen lay seen mbokk di sama mbokk ndax innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha laallakum turhamun tey lii fi li ñu fi yàlla defal rek ah, su ko suñ ko comptabiliser yàlla fay ñu ci yërmandeem jur na lu bari dox nañ fi mbokk du mbokk gaa ngi nii jóge tuubaak ak Ndar ak Louga fu ne ay ñam amu fi ñu lekk bay paquet te itaamu miskin ñaata nit a fi lekk yu imaam yuusu xamul te yonent bi nee na jox nit benn tibb mu lekk ko moo gënal yàlla nga tabax junniy jàkk sëñ bi junniy jàkk bari na te xaalis ba bari na si yonent bi nee na nga jox nit benn tibb mu lekk ko wanaasu ko moo ko gënal moo gënal yàlla parce que balaa kenn ci jëm ci jàkka ja day am biir bi biir bu ci dara newul borom du taxaw beneen allahu ba waaw kañ kon ñam am na fi itaamu miskin dox mbokk am na fi tagg yonent bi am na fi jàngal xoraan am na fi ah kon kañ ñun liñ li yàlla bëggoon ci ñun yëpp yàlla xéewale nañu am nañ ko waaye ci barke kan imaam Youssou Guèye bii maa ngi koy sant di ko gërëm Serigne Cheikh Tidiane Sy nag nee na <coughs> nit lim baax la yëpp soo ko ko waxee ci benn jotaay at ma yëpp lu ko ca dal yow mu ne da ngay wax tuuti li ci des nga soppi ko ñaan ñaanale ko waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm mook oustaz Sidi Ahmed bu ñu ko santee gërëm ko nag gërëm nañ mbooleem ko sant Guèye te yaa Xadi Guèye jur moom mii papaam li ma Mamadou Guèye di wax ci moom su ma ko ko doon wax àddina tukki Mamadou Guèye moom <laughs> mën naa ne gëmul sax Seydi Hadji Malick bàyyi Youssou Guèye mii la gëm moom lañ ko tuddee yemu ca mais daf ko gëm xaqiqata du wax ñaari baat yu ko tudd du wax ñaari baat yu mu ko tuddul loolu maa la koy seede ndax toog nañ maak moom ci Italie lu yàgg di ci wax ci sa papa mu yéemu ci xam-xam bu koy Sénégal moo baaxul xamuñ boroom xam-xam seen yoon nekku ci ku bari tappale lañ xam ku am njëriñ xamuñ ko ku rëy gémmiñ lañ xam moo tax boo amee xam-xam réyoo gémmiñ daanaka dañ lay noggatu rek moo ko dal moom moom ku ñëw noggatu ko dem ku ñëw noggatu ko dem ku ñëw noggatu ko dem parce que du wax imaam Yuusu du wax du jàmbat du nemmat yoonam newul ci dara fi mu toog la toog buy wax sax boo xerewluwul doo ko dégg ndax yar macha allah yal na ko yàlla lafal cal imaam Yuusu jërëjëf man gañ sa xalifa nag laa koy seddaloo sama turandoo ak Ismaïl maa ngi leen di seedeloo ne ku baax la ku ma jàppale la ku ma yërëm la ku ma dimbali la fa tabaarakallaahu moom oustaz Sidi Ahmed bi Mansour yow it tabaarakalla taxawaay bi rafet na ñun ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp na mbay jum tabaarakalla bayaale mag ñi fi nekk ñëpp góor gi sow yéen ñëpp bàyyi bu ma kenn maam góor jërëjëf wax yu rafet yëpp dégg nañ góor gi Mansour Thiam newu fi waaye yow yaay Mansour numéro 2 rek waaw ni ko Mansour di defee nga koy defee yaa ngi ca machine ba yaa ngi ci wëy noonu rek la yal yàlla fay la waaye na góor gi mi ma xamoon ba mu amagul soxna ak biitoog toog du benn soxna baax na de ni ngay solee mbaxane nii daaw ko solee mbaxane waaw soxna baax na de nii ma la gisee nii bokk ak na la de billaahi jigéen ñi yéen yal na ngeen fi yàgg góor ñi nag ku dem baax na sama yoon waaye yéen daal yan na ngeen fi yàgg ndax billaay bu góor ñi jekkee yéen bu góor ñi jekkee rek yéen la te boolewu leen ci wax moo tax sëñ Babacar si ne moom jigéen ñi la àndal ñooy pendal yu man ji góor góor pendal yu man tubéy mu ne ndax lu ma woote ñoo ci man te duñ ma laaj ijaasa duñ ma laaj président daayira duñ ma jiiteloo jàkk mu ne góor ñi nag ku ci ñëw yaa nga naan ma sëñ Babacar Mbay Jum de mooy président daayira Géejawaay man maa nga dëkk Pikine fexeel ñu nommé mag président Pikine foofu bu ko defee góor gi ñëw sëñ Babacar man dey day eh, Modou Fall am na ijaaza man mii de ci kër gi laa yaakaar ba léegi aw ma ijaaza mu ne noonu rek lañ koy jàppe sëriñ Mansour ne borom daara ji turandoo kii moo ma ko nettali ci gémmiñam vraiment am du ma leen wax sax la mu wax jaar foo xam wali yu mag lu ko neex la yow ñëw fii rek liggéeyal ma bit jiw dem na màkk dew ma màkk jiw am na ijaaza dem aw ma ijaaza ma yóbbu ko màkk mu ñibbisee ma ne ko loo wax mu ne ma ijaaza te sëñ Mansour ku mu daan yóbbu màkk moo lay ju bàyyil dépense sa kër bi ba ngay ñibbisi daf lay laaj looy dépense léeg-léeg sax nga gis ku ñeme yàlla ko daan dépense oo 1000 francs ne ko 2000 waaye du tee da koy comptabiliser jox jox soo demee ba ñëw daf daan obliger ñëpp nag nañ jaar kër door a dem seen kër boo jaaree mu jox la njëgu nag jox la njëgu dépense weer ne ku jógee màkk da ngay sonn doo taral lijjanti dépense jox la dépense weer ne la demal nga toog nag te recevoir say gan waa jàmbur lu mu mu ne amul mbaadoo la ko lu muy def ma defal ko yëpp mu ne ma eh, màkk gi neex na yëpp neex na waaye des na ijaasa ndax Modou na ko te aw ma ko <coughs> sëñ Mansour ne ma jéppi ko rek xëcc ci benn benn këyit rek bindal ko ijaasa lem ko jox ko mu ne ma jërëjëf si dama koy def saafara sangoo ko wala dama koy takk téere mu ne ma xoolal doomaraam ji xam nga ne kii xamul sax noonu la ma ko waxee wala mu ne ma doomaraam ji xam nga ne kii xamul sax luy ijaab la jël ma wit xam nga yooyu nag fekk ci jigéen ñi jigéen ñi moom ndeysaan bu ñu weccee ko seen 2000 francs wala seen 1000 francs wala seen 5000 francs di ko saraxe sax ànd ak fierté kontaan te duñ ca boole jox ma dara kon yal na yàlla def tawfiq loolu yëpp dañ koy wax rek pour ku ne gën a bàyyi xel boppam loolu rek lañ ci jublu waaye góor ñi tamit am ngeen waaw am ngeen njëriñ ndax yéenay joxe dépense yi waaw donte nag duy mat mottalil rek ci lañ dëkk la waaw jigu ji góor ñi mottalil rek ci lañ dëkk jekk tànk bébé mottalil rek ba suba suba googu du ñëw mukk maa la ko wax ñii ni ma leen xamee ñii yàlla yàlla dolli sutura rek bu weer dee nii comme nii tey la la tey la dër laay laa dañuy neex deret ñoom Mor Jañ ñi dañuy neex deret bu weer wi di doole jee waaw bébé weer wi de dee na fekk am na lum dañ ci kat waaye loolu bëggul bébé xam ko bëggul jekk tànk xam ko da ko naan bébé am na weer bi dee na léegi indil courant bi ñu xool ñaata la courant bi cher na ah, ah, waaw baax na baax na garaaw dépense bi weer bi ñaata la ah yow tam nijaay bébé papa kii bariwul de bu ceeb amee diwlin am ndugg yu sew yi moom mille par weer par bés rek baax na waaye na fekk ceeb bi saako bi ceeb bi jeexagul diwlin ji jeexagul soble sam am na fi yi manqué daal mille par bés dana baax waaw 2000 2000 mois bi ñaata la ah 60 000 sans deewut sans courant sans euh, euh, dépense cinquante courant cinquante dépense cent deewut fekk moor cent cinquante mil la fay te war naa paas dem ñibbi liggéey mu mu xool ak lan xale yi seen couche yi <laughs> ah dina métti na de waaw ah, xale yi seen couche yi loo ci xam waaye bébé nag yooyu cinquante mille yi ma dese waaw kon lu may passé lu may passé waaw waaw garaawal indi après ñu toppal man sax amoon naa fi lu ma teggi woon sama yaay yi dimbale woon na ma ci nangam ah waaw kañ ah eh, abal ma ko rek ba weer wi deyaat alaaji bu saaxo ne ne weer wuy dund mënut dara bu dee lu muy mën loolu moom bu ngeen yeboo rek ngeen baal ko góor ñi ba yow mal xiyaam duñ leen ko fay mottalil rek mottalil mottalil waaye ba bés pénc duñ mottali duñ mottali mukk loolu nag bu leen yaakaar ne yàlla daf koy neenal déedéet gis nga dépense yooyu ngeen di joxe bu kenn xeeb joxe dépense foofu laay jeexale sama kàddu gis nga dépense du tuuti du rëy jigéen ñi tamit maa ngi leen di ñaan bu kenn xeeb dépense yow fexeel lu mu la jox rek boo mënee am te mën mottali dara newu ci yàlla dina la ko fay ci sa njaboot waaye su la neexee it nga am mën fas ci sa lafu sër denc ne ko maa bañ benn bàkkaar doo ko ci am bu la neexee nga denc 500000 ci armoire yi moom maam benn benn 5000 bi ko korkoral dépense sa yoon new ci dencal sa 5000 ba mu jekk sa 500000 ba mu jekk yaa ko moom amoo ci benn bàkkaar 5000 bi ne ko jox ma marché moom la war. góor lu soxnaam am yoonam newu ci moom lañ teg responsabilité dundal wot ak yor moo tax wal yunfiq zu saatin min saati wa man qudira alayhi rizqahu fal yunfiq mimma aataahu llah yéena ko moom laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha sa yajalullahu baada usrin yusra jibiyaa ko borom nee na wal yunfiq nay dépensé zu saatin ku bari xaalis min saati yi ci xaalisam bu bari bari bu nowee soxnaam bi jox ko dépense su cent mille francs yoon kenn ci yàlla ne valable jigéen ji mérité woon wala yunfiq zu saatin min saati mu ne waaye wa man képp koo xam ne xudira du ma ko wax kenn ko ne ci mbooloo mi nag gàttal naa wërsëgam ba mel ni Sidi Maxtaar Kunta mu ne bu mu joxe de 500 francs la am na làmb 500 bi man yàlla maa ko ko obligé na làmb 500 bi wal yoon fiq da dépensé min saa min saati yi ci wërsëgam woowu moom man qudira alayhi rizqahu fal yunfiq na dépensé mimma ca la nga xam ne aataahu jox na ko ko allahu bur yàlla min fadlihi ci ngëneelam nga ne ko yàlla man benn 500 laa am bi mu ne jox ko sa yaj àllu dees na def allahu moom bur yàlla baada usrin gannaaw bi mu jafeñee ci yow ba mu teg ngon ba mënoo am lu dul 500 ma jafeñal ko ci yow mu ne joxe ko rek yusran danaa ci toppal ak yombal joxe dépense day tax am beneen bi ci des am na def joxe dépense bàkkaar yooyu def julli du ko dindi woor du ko dindi aj màkk du ko dindi saraxe du ko dindi naafila du ko dindi dara mënu ko dindi xam nga lu koy dindi génnee dépense jox soxna si mu dem marché togg ñëpp sukk ci bool bi moo koy dindi soxna si it am na bàkkaar yoo xam ne julli du ko dindi naafila du ko dindi weeru koor du ko dindi dépense bañ ko jox mu togg ci añit yekk ñëpp tiim ko moo koy dindi yonent bi nee na yàlla nee na ko su ma gisee góor gu jël dépense di ko jox soxnaam mu ne dama naan malaaka yi foto leen ñu foto ko mu ne ree leen ñu ree mu ne xool ngeen ñaar ñi ñu juboo ba kii la ma ko sant ci kii mu ngi koy def ndax mu ngay génnee dépense di ko jox boo leen leen ma ko ci sarax yi gën a nangu te yow ba da joxe ba noppi am ci tiyaaboy ko sarax kon kañ bu leen nay ngir yàlla bu leen nay yonent bi nee na ki gën ci yéen mooy ki gën ci njobootam te man maa gën ci yéen ci sama njoboot moo tax mu gën ñu ñun ñëpp waaye di korkoral rek soxna si toggal foofu mbaxal rek baax na baax na waaw mbaxal baax na waaye am nga njëgu njëgu ceebu ceebu jën bu baax jox ko ceebu jën ah waaye soxna si guddi gi moom guddi gaaw na gaaw na toggal fonde rek wala benn soom rek guddi gaaw déedéet déedéet bu ko def na kër gi neex li ngay koral jox ko kër gi wallahi xale yii ku leen dimbale yàlla dimbale ku leen bégal yàlla bégal li ngay korkoral foo koy jëmee bàmmeel tabax benn kër fi ñaari fan nga jey fanaan ñu yëkkati yóbbu ci armeel ñu commencé di miraas kër gi kii naan ñaari fantere yi maa ko moom kii naan ñaari néeg yi nañ ko séddoo kii ne taxaw naa pour jënd ko teggi leen loolu rek a fi am balaa loolu di am nag yàlla nee na li nga yor na kër gi neex d'abord na añ bi neex na reer bi neex ndékki li na fatt taraj ay nen yu neex yu ñu omelette beurre fromage chocolat saucisson maa la ko wax ngeen toog en table yéen ñépp as taatal baax na aw jamian wala mboole seen ngeen toog billaahi day bëgg loo yàlla yàlla gis njaboot gi toog uuf palaat yi déedéet gis toog njaboot gu sew gi toog yaay jox ma sama mburu diwal ma ci chocolat diwal ma ci beurre yàlla day toog di billaay bi naan xoolal sama jaam ngi lekk ci teraanga jëma leen terale xool fayal leen ma bàyyi bi ko sabab waaye fayal leen ma ndey bi ko tàngal yooyu buñ ko xeeb boole ci nag da indi indi yërmande ci kër gi ndax di nga jàngal xale yi partagé ba pare yow di nga mën a surveiller say doom xam ci ku bëgg lekk xam ci ku bëggul lekk xam ci ku siis xam ci ku siisul ba boo léegi nga woo ko ndànk ne ko kaay sa mburu bu ñëwatee kii jeexal daggal ko ci ku la ñaan may ko loolu ci ruq nga ko koy wax bul toogee nii bu nit ñi toogee del toogee nii del def nii yow jigéen nga bul di ngolli say tànk tëjal say tànk yow góor nga sukkal sa benn tànk bi yëkkati benn bi ci ngay mën a corriger sa njaboot ci waxtu añ waxtu reer waxtu ndikki waaye yow yow daal ci biir néeg ba lañ lay làq nga mel ni ganaar guy nen ñu baal ma ci waxee wi ngay jaay patron ne yaay borom kër gi ñu làq la ci biir néeg ba nag ñu naan la petit déjeuner au lit mbay bàyyil petit déjeuner au lit kii petit déjeuner au lit bàyyi xale yi ci suuf ñu tegal na fële yow sa foromage gruyère sa saucisson sa nangam nangam indil la ko ci kaw la mu ne la papa ndekki laa ngi nii lii waaye bébé yow lii ëpp na fekk njaboot gi xamuñ lu xew ñoom kénkeli baabu amul suukar lañ leen jox yàlla ne yaa boon génnal partagé ko ñoom saucisson bi bu dee benn la daggal ku ne nga jox ko tuuti ku ne mos mburu mi bu ñu la ko diwalee bër ba mu fees génn daggal xale yi jox leen yàlla ne boo leen féetee fi ma leen waroon a féetee man yàlla ma féetee la fi ñu la war a féete billaahi wal kitaabi ku ciy bëggal sa njaboot doo ko rëccu waaye ku ci fexe sa njaboot bañ la léegi nga dee feebar yu gaaw cancer gaaw a cardiaque ñu robi koo xam ne booy ñëw ci kër gi sax ñu naan boo xumpaa bi ñëwati na de kii du dem liggéey ñëpp lay en am na Abdoulatif Guèye daf ko daan wax ñëpp di ree yaakaar naa fekkee ngeen danaa wax ne moytu leen di tàngal seen xol yi du njaboot mu ne xam nga luy xew booy ñëw waa kër gi yëpp dañuy triste xale yi dañu lay ragal a ragal a ragal ba triste bu ko defee dañ naan paa moom heure wàccam jot na de léegi mu ñëw berger allemand tëdd mu ne seen yaay toog ci ruq ba naan yal na dee mu ne sëë xale ak yal na deewu ndey borom mën na ko boole gudd fan mu ne da ngay xëy rek teeñ ñu barmeel mu ne seen yaay di teeñ ñi di jooy jooy lu nag fekk dara safu ko ci jooy yi mu ngi naan alhamdulilahi rabbil alamin ci suñ kontóor yi xol yi la toogoon dem na noppalu ne dara jaru ko nag looloo koy indi te bari na ku nekk berger allemand ci kër gi xarum tulaabeer la ci biti maa la ko wax boo nekkee ci kër gi di guddal mustaas ak firi tuñ ñu baal ma billaahi li ma leen di wax man dama ko dama xam ñu koy dund di firi mustaas xonqali bët te fi ñu toog ci kër gi ñu ngi toj kër gi billaay boo récolte ba këf seen téléphone. laa ilaha illallah muhammadu rasulullah fi ñu toog yow xale yow jëkk yow jabar jëppi la foofu lañuy ñuy toj kër gi ku ngeen gis ñu bind ci tur wi Moustapha lijjantil Moustapha boobu mare mare ay uus ay uus Moïse Moustapha Jean Zakaria du dëgg ay turu jigéen yuy soppi yow téléphone bi ngay tojee kër bi taloo sax sa waat te yaa ngi message dante xale bu tuuti ko bébé bu dee téléphone yi léegi xam nga day am écho da ngay wàññi son bi naan ko bébé am faut parler doucement toi aussi toi aussi parle doucement li tafsir gay waxoon ñuy fanaan tafsir gay nee na dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw toog ci kër gi ndekete farwa gel baa ngi koy woo téléphone bi sonné mu ngi toog ak soxna si nee na mu téléphone bi sonné mu la ilaha illallah soxna si ne ko mbaa jàmm mu ne ko kii day saa yu ma ko déggee du jàmm allo mu ne ko yow boobu léegi maa ngi lay jël maa ngi lay wooyu nanguwoo ma décroché xanaa da toog ak si soxna mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi <laughs> inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu xew noonu mu ne ko yaa ko tey yow nangam taan gi mu ne ko kañ la dee subhanallah fekk yi muy wax yëpp da koy côté yëpp ay côté la dara du ci dëgg waaye ni ngay neexalee ki ci biti yow ku góor neexalee ki ci kër gi dëgg la wala yow ki nga xam ne bi nga koy doxaan fukki weer yi amoo jàmm amut jàmm yéen a ngi wat sot rek guddi bi à partir de vingt heures ba bër set bu bilaal di nodd sax nga daan so oh, bilaal kii kañ la daan nodd heure bi doo tay doo sonn bu connexion bi di jeex sax yaa ngay leb lebal ah dëgg la wadul dëgg mu ñëw sëy si ci kër gi mënatu leen communiquer un mois rek mënatu leen communiquer su wax yow da ngaa wax man taluma loolu tey la bari wax waaye ba ngay toog ci mbedd bi di ko di nëbbatu bari wutoon wax wala tansawul fadla baynakum alquran laay wax de wala tansawul fadla baynakum yàlla ne bu leen fàtte bien yi doxoon seen diggante démb balaa takkante di am kon boo ko takkee mu ñëw ci kër gi la woon démb dekkal ko maa la ko wax dekkal ko waaye mu ñëw sëy sëy ci laa gis koo gis sama butit yi laa yemale yaa bon xanaa tey waaye ba nga koy topp di daw waxoo woon ne gis koo gis sama butit yi laa yemale yow ku jigéen nit ñaari camp yëpp la waaye li ci ëpp nag léegi jigéen ñi la billaahi wal kitaab li ma ciy réglé par bés xaw ma nu mu toll balaa may ñëw fii rek dama taal sama téléphone rek am lu ma ku ma doon woo mu am ku dugg ma jël mu ne man la diw Paris ma ne ko lu xew muy jooy ma ne ko lu xew wax mu ne sama jëkkër moo ma fase ma ne ko bàyyi ba suba man dinaa la woo nga woo parce que am na fu may dem te bi ma demee nii pare rek gis naa ko lu ne la da jaj ci jëkkër ji jóki jëkkër jëkkër ji jógee Italie ñëw fekk ko pare ñaari dërëm yu suukar kafe amoo ko la ko ndaw ci defal yépp maa ci teg sama bët xamaguma nag lu xew waaye gis nga yii dafa métti maam ngoon góor ñi bu leen neexee heure bu leen neex ñu ah, demal sa kër ah fase naa la ah. mais loolu mooy lan mel ni sëy buumu fàlle yi bu la neexee rek nga def bu bi sëy du buumu fàlle yow ki nga xam ne dañ ko jëlee kër bàyyam indi ko sa kër yow yaa war a am maturité pour téye ko boo amul maturité pour ko delloo ko bu jekk waaye bul tilimal bul ayibal bul saaga bul tilimal bul ayibal bul saaga dellool bu jekk ndax bu keneen bëggee jël waaye bàyyi nit ba noppi topp ci deram kenn du ko def saraaxan jamilan la yàlla yàlla nee na boo demee bay fase na rafet na rafet bu waaye bu leen rëbbante maa ngi koy ñaan ñëpp alaaji Abdou Aziz daf daan wax ne sëy yi takku bareetu mu ne waay waay buy tas fuñ jëm fii la ko daan waxee ci jëppal mu ne sëy yi takku maa ngi toog keroog muy wax ba ba nga yëg ne kii dafay ñewent jigéen mu ne insha allah waxtaan wi may defaat bi ciy topp su ma ko yàlla mën loo ci jigéen ñi laa koy def ndax maag jigéen ñi ñoo ànd yàlla dogalu ko nag benn mbar dem barza keroog maa ngi toog ci sëy la mu yegg ca benn da ngay am doom bu jigéen mu toll ci sëy nga bëgg ko dënk ngir yàlla ak yonent bi ngor ku gore doo ko gis mu ne dara gënu ko métti wax dinaa na digal ee kaanu dem fu ngeen jëm ca maam Maodo dawal gaal dugg leen ku ci duggul nu ne maam Maodo dawal gaal dugg leen ku ci duggul nu ne waxal rabbuna tabaraka aw rabbun taxaddasa aw rabbun taxalla wa rabbi allah barambara sol de ragal takay jumla baayu Babacar magi Abdou man seen abit jot bëggul waru fi bëggul xaali xaalewul nagak waxal bëggul waru falun طول عدتني زارا معادا من يجاوزه أدنى من يجاوزه أدنى من يجاوزه أدنى تستثارا معادا من يجاوزه أدنى الله تسير أستو يا نكوي في الفم تستثارا معادا من يجاوزه أدنى الله تسير شيري أستو يا نكوي في الفم تستثارا معادا من يجاوزه أدنى الله تسير شيري أستو يا نكوي في الفم تستثارا waaw kañ asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xaaji maam loo wax Seyxa xaaji Mansour Sy Malick nee na wul baaram woor defal nii ñu màggal sayyiduna Muhammad wa dawxatul usmaan sallu ku am baaram buy métti jéggal la balaa moo nga ne wa dawatul ismaay xallu waaye ku sopp sayyiduna Muhammad déglul tuuti rek ñu waxtaane kan mooy yonent bi wa dawatul ismaay xallu xaaji maam nee na alxaaji Mansour doomu sayyidul xaaji Malick a wax kuy sayyiduna Muhammad wa kan mooy alxaaji Mansour mooy doomu seex sayyidul xaaji Malick moom lay waxaat nii ci làmmiñu alxaaji maam góor gi huwa dawatul usma yudhallu mu ne bu ñu dajee yowmal qiyaam rasulillahi mooy garabu ndenjantan ba bi zillihi naaj ba dafay tàng ba tiim suñu bopp ñu ñàkk bay fee ci kaw ñàkk ba yamun bila mannin rasulillahi làkkatu fa mu làkkatu cent vingt quatre mille yonente yi ku ne du daw ci sa moroom yamun bila mannin ñu nan an tuuli aadama alayhi salaam yamun bila mannin yaatuuna salaam يمن بلا من يقولون يا آدم أنت أبو بصر يمن بلا من maam Adama nettaluma leen la ma mooy yàlla ca biir àjjana laay seet ndax yàlla dina ma jéggal wala du ma jéggal. yamun bila mannin. daw ci maam Ibrahima Ibrahima nettaluma leen. yamun bila mannin. daw ci yonent yàlla Moussa mu nettaluma leen. yamun bila mannin. yàlla xiyaam jaxasoo ku ci nekk di taxaw sa kaw morom te sa morom du ko yëg. yamun bila mannin. yàlla ñor di bañ jant bi ba mu mu tiim suñu bopp ñun ñëpp ñu ñàkk bay fii ci kaw ñàkkam yamun ni bila man nin yaakaaru jaam yi moo nga fa mu ne rek bàyyi fatimatu bintu rasulillahi jëddul useynu ko tabalat kaw na ci doote ay may ku bëgg rasulillahi loxo ci kaw ñu màggal ko ñëpp ne ni yamun ni bila man nin aji maam dañuy jekki-jekki seen benn jamaa buy jebbi ci suuf si yamun ni mu jamaa ca jebbee ba mel ni taxawaayu nit mu toll fa yamun ni bila alladi jëmmi sayyiduna Muhammad yamun bila mannin nabi yëkkati ay loxom di waaj a julli yamun bila mannin yàlla ne ko tey amul julli sal tuuta laajal ñu jox la loo wax ñu def la ñëpp ne ni yamun bila mannin rasulillahi taxaw ci buntu àjjana naan ummati ñëppay dugg àjjana yamun bila mannin alxaaji maam góor nee na yamun nu day ñoxti di joxe bila mannin te du ñaaxaat wayn filmaasiya yow mal qiyaam di nga gis ku mooy yàlla nabi mooy xettali waaye mooy yàlla ya tàbbal biir àjjana wa awwalu man alamba keroog ba yàlla ne alastu bi rabbikum aw huwa al muntaha majdan ah huwa moom rasulillahi muntaha mooy daytal majdal ci tedd wa faxran di puukare wut sa morom sa morom mooy sax wal murtaja ëllëg yowmal xiyaam nabi suñu añ bu ko ba ñëpp ñàkk ma yasib naasiya haji maam ma daan ko misaale mu xëy suba ndékkiwut muy ñaari far óoru añ jot mu joxe dépasse bu mët ne nar naa añ ñu nduggal ko marché ba toggal ko ba mu ñor soxna sa nekk añ ba naaje juli nañ tisbaar waaje mënta añ te bul fàtte ne ndékkiwul démb añul démb ba reerul démb xëyaat tey reeru muy xaar añ ñu togg ko ba mu ñor te ba ñu koy togg mu koy xeeñ na mu gën a neexee soxna sa téye ndab li ay 4 heures et demi di daagu ndànk ak ndoxatam pour taajal la añ mu dem ba tiim la añ ba ne këlëb këp seetal bi tas yaakaar nooy def ak moom kii fasem xaj la ah, ah, ah. ëllëg yow mal xiyaam nag rasulillah noonu la ñu mel noonu la mel ci wal murtaja yow ma yasim nawasiya. mooy yaakaaru jaam ya ëllëg yow wa awwalu man alaba. ba yàlla ne ndax di ngeen ma jaamu. ala subi rabbikum. ndax di ma jaamu ku njëkk a wuyu. yaru rahmaanu man kaana munadiya. yëguloo ni kuy def baaraamam nii yaa ngi fëgg buntu àjjana ku yàgg fëgg ñu ubbil la. seen wa xad xaasa. Seydou Hadji Malick ko bind ca xilaasu zaab taazimuhu wattizaaz xiina tazkuruhu Maodo nee na ba ñuy tudd Seyduna Muhammad ku amul baram buy metti del fittasu ci nabi day mel ni yaa ngi fëgg buntu àjjana te ku yàgg koŋ-koŋ ka ca biir bu yàggee mu ubbil la. ñëpp ne nii waxat xaasa. waxat xaasa xuus na xaaj. ci biir leer yi xiinan mu sabbihan diir muy sabbaalal boromam wajaaba buuran wajaaba daggana wajaaba feey na wajaaba traversé xadratal mutadaaniya fukki géej bi la sayiduna Muhammad jege boromam wa kaana nabiyan wa kaana nekk na nabiyan suñu yonante bi nubuwati aliman boobe aliman bi aji xam bi nubuwati ci nubuwam booba aadama fu mu ne wa aadamu baynal maay wa tiini saawiya bi yàlla di defar maam aadama ak diggante ndox ak fan diggante booba yonent bi laata maam aadama di sotti yëg na ni yàlla dina ko roofal nubuwa ëllëg moom sayyiduna Muhammad wa anta alladi xudista kulla mahabbatin rasulillahi la ñu jagaleel cofeel xaaji maam lii faaw ma baat bii nga wax cofeel ak xam nabi lañ ko jagaleel cofeel mbëggeel ci kenn la am muy sayyiduna Muhammad yi ci des yëpp cofeel la xam naa ñu jot a nobante ñoo nga naan kii lu mu wax mbëggeel ci kenn la am muy sayyiduna Muhammad ya ca des yépp sayyiduna Omar cofeel sanga ko firi sëri moo ko firi benn bis nee na lay tax nga mën a cof aawa cof ñaareel cof ñetteel cof ñeenteel cofeel la bu doon mbëggeel kenn rek ngay no cofeel la ba olofa ko firi cof da cof aawa ji téye ko boo àggee ci biti keneen xëtt sa xol nga cofaat kooko xëcc ci kër gi muy ñaar ah keneen xëttaat xol bi nga cofaat kooko xëcc ci kër gi muy ñett boo xëccee ba àgg ñeent nekk taxawal àgg nga gaaraas nekk dëgg dëgg nekk. waaw dëgg dëgg nekk gars yi dañuy fëgg. taxawal léeg-léeg gars yi bëtt baaraas bi nekk waaye taxawal nekk dëgg dëgg nekk. jullit ju weesu ñeenti jullit du weesu ñeent rakk jullit du weesu ñeenti sox taxawal. li tax mu doon cofeel xaaji maam seetal li sang bi tàmbali sànq te àggul ca bopp xam nga mooy lan ki nopp xale bu jigéen dem seeti ji ko après minuit waxtaan ak moom ñetti waxtu ci biir saal bi xanaa bët set na nga génnaat ci buntu kër gi dolliwaat ñen yeneen ñaari waxtu ci seddaay bi amaana seddaay baa ngi tar loolu yaay sol lu diis soxna si solul lu diis nga ne ko non solal lii man ñi ma naan seddaay te yaa ngi xaw a dee solal ko yërëm ba noppi taxaw nag banque say baaraam di korkori di jéngu ci wetam nag di fippu jéem a na ci mbedd bi yooyu yooyu cofeel rek. yooyu yëpp cofeel la ko la. cofeel rek xam nga ban moo ciy tegu. Ah. mu ne la séeri kañ nga fiy dellusiwaat yaa ngi tàggoo de. cofeel tax na mënoo wax wax ju gàtt te dem nan ko suba war naa dem Dakar kenn laaju na ko yow sub kañ nga fiy dellusiwaat neel suba wala ginnaaw suba wax nga jë mais waxtaan laa neex ba da naan suba war naa dem dakaar man sama papa sa xaw ma lan la ma wooyee tey yoonu soxna si nekk yow fa nga war a dem dem fa mais ne ko suba naa ñëw wala ginnaaw suba cofeel la tax. ma misaale beneen misaal ñun ñii ñépp ku ci nekk soxna si nga jëli ba indi ko sa kër keroog ba ngay bëgganteeg moom boo ne saraax ci koñam këram moo lay gën a neex ci koñ ko kër gi mu dëkk rek ngay xool ci koñ mel ni kër gi rek moo nekk ci koñ xam nga lu tax kër gee ëmb ki nga nopp maj nuunu laylaa ko wax oh. amurru ala diyaari diyaari layla uxabbilu zal jidaara wa zal jidaalu uxabbiru wa ma xubbu diyaara saxaf na qalbi walakin xubbu man sakkana diyaar majnuunu Layla xam nga lu ko daloon no Layla ba bu xëyoon day raay miiru kër Layla delluwaat kër ga nee na mënumaa gis Layla mais naa raay miiru kër gi rek bu ñëwee miir wi xaw a sori lool mu seen xaju Layla génn daw ba dab xaj bi raay ay bëtam ne xaj bi gis na Layla te gisuma ko ngir eme dem ba yooyu yëpp mënta ne mbokkam yi woo ko ne kii ngay dof nañ ko yedd ñu taaj ko ci diggu ëtt bi mbokk yëpp wër ko di ko yedd bàyyi Layla mile di nga dof rek heure bu ne ngay bërëngu ci lal bi te góor gu ñu fase tànka ya xar muy bërëngu ci lal moo dàkkalaale dara dara du fa des tànk yu xar day laali dara gis nga mbokk yi di ko yedd di ko yedd naan ko bàyyi Layla mile Layla sonal na la gu Layla guddi Layla bëccëg ba mbokk ya pare xaaji xam nga lu mu leen tontu mu ne pare ngeen ñu ne ko waaw mu ne maa bëggul waxtaan bi jeex ndax turu Layla bi ngeen di tuddaale ci biir waxtaan bee ma sa ñépp ne moo yéen kii dof na bi mu xëy rek ñu ne ko Layla dee na biig ci guddi nag affaire bi jeex na léegi léegi mu ne déedéet jeexul yóbbu leen ma ba ca armeel ya ngeen gas ci wetu Layla suul ma te deewagul. mooy ndax aimé ah, ko ca armeel ya gas ci ko te deewagul ci biir bàmmeel bi la deewee ndax nobeen mbind laay wax de wa maa xubbu diyaara saxaf na qalbi bañ ko robee xam nga lu xew Haji Omar. bant bi mu bi ñu samp ci bopp Layla ak Majnuunu Layla ñaari bant yee jeeb bi daje ci kaw ñoom ñaari bant yi ñu nobantewaat ñii seen nobante dëgër na de. dëgg la ah? loo teg. wa anta alladi xudita kulla mahabatin. qul in kuntum tuhibbuna allah. nabi fu nga dënnam ne fattabi'uni. wa anta alladi xudita kulla mahabatin. yow rasulilah yi ne bépp bépp. mbëggeel yow lañ ko jagaleel yow sayyiduna Muhammad wala yakun xayra kadaka waxtu ka baadiya ku dul yow ci booba jamono bi la ko yàlla di tappel nag nekkul ci kanamu yàlla mu dumoon sër iman la da min hijabin nuuri alhaji Mansour Bal kaana hijaabo wa bil kibriya wal idhi asbaha baaqiya kiiraay mu bëtt kiiraay yooyu yëpp kibriya wu ak idhi mu bëtt ko ba àgg ci yàlla subhanahu lawal abdu wal ijaadu jalla jalaaluhu cant ñeen na yàlla amal gi mu amal doomu aadama yi ak màgg ga mu màgg wal imdaani min fadli muniri maaxiya ci barke Sayyiduna Muhammad la ñu bindee képp ku fi toog ak képp kuy dégg rajo bi ñu ni walaw laaw lam tadri walaw laahu bu dul woon ak rasulillahi lam tadri du xam la xaliqatu xadra bëlbati ko jóge ci maam dem ci beneen maam bu sell nabi maam bu mës a jaar rek maam bu sell la moom Sayyiduna Muhammad maa la majjukara raasiya maa zaala musta dañ majdu ko sob teddange raasiya muy wéy ba yow man xiya ñëpp ni ni ways kunta fi larxaami taabat walam tazal nabi ba mu nekkee ci urum la xaaji maam di wax huwa allazi yusawirukum fi l arxaami kayfa yassa laa ilaha huwa azizul xaqim dafa am bis yaay aminata dem ca teen wa root ba noppi amul ku koy yen keroog la ko nabi ne yaay liir laa mëtaguma pour juddu waaye may ma ma génnee samay loxo yen la nga ñibbi kër ga yaay te bu ko nettali ñëpp ne ni wa kuntu bil arxaami taaban walam tadal ba mu demee bay waaj a juddu góor gu tedd góor gu sell borom sikkim bu weex sol yére yu weex tàll mbax na bu weex tàll kaala bu weex tàll dàll yu weex tàll beñ ye weexaale tàll xuus ci godoro 66 a génn te takkul Malick Fa wadd wele ba ca juróom-ñaari gaar ya ñëpp ne ni wayit kundawina raxatat wala tadal mu ne keroog bi nabi di juddu ko ñu miir ba xar Maodo ne na ko ñu miiru néegu yaay Amina moo ne tàcc xar Maodo ne ba mu xaree li dugg xam naa ko ba mu duggee la mu def man Maodo xam naa ni nabi juddoo man Maodo xam naa ko jërëjëf Seydi Hadji Malick nee na benn picc moo xar ko ñu miir bi dugg ci néegu yaay Amina jël laafam Maodo nee na maa ngi tiwaawoon di ko télévisionné ca Makkatal Mukarram mu jël laafam teg ko ci pooj bi ci kaw raay ko laata moo àgg ci ndigg ba nabi juddu na yaay Amina yëgu ñëpp ne ni yoyit kunna min arxaaya taabat walam tazal taabat teey na ci biir ëmb walam tazal te dañul te tuufi bi kallam la ku tarxal maraaxiya chaque jour yaay Amina malaaka yi dañ ko def kaaba di ko wër ndax nabi mi mu mi mu ëmb. bi mawlidi ko koy wër óor bu ne ndax nabi bi mu jur yonente yi di ñëw di ko ndokkeel maam mbaa yëg nga ni nabi nekk na ci ëmb 5 ans yaay Amina yëgul ni moom ëmb na ko. du lu bees. ay ay gis rek moom ci xilaasu zaab bi. yaay Amina yëgu ko wa jaa a aadamu tabsiran yëgu ko yëgul ni sax moo am siisul lahaa yëgu ko idrisun yëgu ko xuudun yëgu ko xaliilun yëgu ko simmi takkal ma wayu foofu te départ feneen summa zabihu kalimullahi kilbatuhu min awali sahri la tartab wala taxibi ay waay def leen ni waay xajma yëgu ko yooyu yëpp yëgu ko xam nga kañ la ko yëg ah. ba mu amee six mois way ko min baadi ma xat xalaaw min baadi ma xat xalaawun lu xalaatihum milki ay mawdo badran sayyidal umam mawlana ala nabi wa lay أجمعين وسلام ربنا دائم من عم بسبيل دهلني من بعد ما قد خاب لا واو يقال لعائلتهم بدرا سيد الأمم من بعد قد خلا واو يهان له ها أنت خملت بطرا سيد الأمم دق الموت maa ngi des a doole ba léegi min ba dima xat xalaa ginnaaw bi mu wéyee waawun six ci la yëgal yaay Amina ni yaa ëmb ki gën ci mbindeef yi loolu law liif 1 la ba 2 la jiim 3 del 4 alkubeer waaw 6 la ba mu àggee ci waawul lañ ko yëgal ni haa yëgal ni antiyo humilti yaa ëmb badaran ki ñuy wax weer wu am fukki fan ak juróom sa yidal umami ku nangoo ku bañ mooy doon sangu xeet bi ëllëg mooy yilif ñëpp kaafatan lil alamin sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku nga ëmb tey Seydi Hadji nee na yeewuma fa Maodo nee na buntu ba delloo nañ waaye am na góor gu yéer lu am lu mu wax xam naa li mu wax man Malick Fawad mu ne góor gi lu lu weex la sol dem ba ca buntu ba rek yéer lu nabi judd mu ne yaay Amina iza wadaatihi iza wadaati sami muhammad la amati bi ay kitman fatahatana ala nabi wa أنا تمسي لحق وحسن سلام ربنا دائما أنا شفينا إذا ودته سامي محمد هل أمرت بأي كتمان فتحت أمرنا على نبي وعلى وتفلج بربشر سلام علينا دائما أما بزهره سميه محمدا الأمر اكتمي أي كتمان فتغتنم maam mbaa yëg nga ni fukki bërëb ak ñeent oof nañ ko benn liir muy liiru sayiduna muhammad ku ci nekk di tudd te ku ci nekk ni mu tuddee yonent bi bokkut ak sa morom fukki bërëb ak ñeent keroog bi nabi di judd te même heure ku ci nekk liir bi nga ëf kooku la ku dut nabi amuloo yàlla sax tudd na ko moom nabi ba mu ko téyee di tudd ma ngi ko tuddee yaasin taaha moom yàlla boo àggee wa inda ahlul ars ñoo ngi ko tuddee abdul majid boo àggee inda ahlul janna ñoo ngi ko tuddee abdul karim moo tax seydi haaji malik nee na keroog ba muy dem tur boobu la wuy ji وعام أهدئ ممتازا على جلل دعاه في سفر مولاه للكرم عبد الكريم جاتا boo àggee ca lim giil ñi amee téere bi ñuy wax lim giil ba ñu uufee nabi di ko tuddee moo tax Seydi Hadji Malick doon ponkal ñoo ngi ko tuddee Maodo Maodo nuun yee ña ñuun yee fu jeexee du nuun nuun du cinquante calculal Maodo cinquante la Maodo taalif nuun yee ñoo ngi ko tuddee Maodo Maodo maa ngi ñëw ci sa waaju tedd ja borom bi jaw bu rafet ba alxaaji abdoulaziz si dabbaax ku ko bëgg way loxo way loxo way góor xaaji maam xam nga yonent bi bi ko malaaka yi uufee nuñ ko tuddee inda ahlul malaikatullahi alkurama abdul aziz malaaka yëpp ba ñu di ko tudd abdul aziz lañ ko tuddee wataala ji abdu yéen Maodo jaaree ko ca alxaaji abdul asiisu mu tuddee ko ko te fekk la ko fore hmm? wa inda tawraat boo àggee tawraat ñoo tuddee faasa faasa wa faasa man bàyyi al misla alladi bàyyi al wa inda ahlul alquranul karim boo àggee ci bi alquran ñoo ngi ko tuddee xaaba xaaba fa kaana xaaba xawsayni aw adna fa awqaa ila abdihi ma awqaa azaqa albasaru wa ma taxa laqad min ayati rabbi kubra afa tumaaruunahu ala ma yara hajma loxo dafa nii waay man damaa jeex sama baat bi ngeen baal foofu ñoo ngi xaaba moom rasulillahi xaaba lañ ko tuddee foofu wa inda tuyuuri boo àggee ci picc yi ñoo ngi ko tuddee abdurazaq keroog bi ñuy tudd sayiduna muhammad wa inda alxiitaani fi lbahri abdurahim boo àggee jën ya ca géej ga uuf nañ réeñ ba ñu tuddee ko abdurahim jaam bu bëri yërëmande ba ñoom ñëpp ku ci nekk oof nga yaa ngee tuddee Sayyiduna Muhammad tur bi ngay tuddee waaye ba ëpp doole nekk mooy bi ko nit ñi oofee tuddee ko Sayyiduna Muhammad keroog ba ñu koy tuddee Sayyiduna Muhammad Seydi Hadji Malick foofa la duggee nekk ne isa wadaatihi bu juddoo sammihi na ngeen ko tuddee muhammadan muhammad al amruktu mi nekk ay yakitmaani fa taxtani mi tur wi nag na ngeen ko nëbb moo tax am na ñoo xamante ne ci sénégalais yi bu ñuy tudd bisul ngénte la du ñu tudd tur wa dañuy nëbb tur wa tëbal ko ba beneen bis ñu door koo wàcc ba betey lislaam la al amruktu mi ay yakitmaani fa taxtani mi turu yonent bi ñu nëbb ko paay paay paay yi bandi biir màkkatal mukarrama yëpp ba ñu déggee ni tuddee nañ ko Muhammad ñu ne warul mën a ne ndax amul maam gu tudd mu Muhammad te arab dañu doon dëppee maam yi paa yooyu ci pénc bi lañ daan toog teg seen attaaya booy bu jóg di jàppale ci yonante bi ca raak ba ñu ne ko mbul daw ci naaj bi naaj bi daa tàng la tanfiru fil xar alquran la de yàlla tontu ca kaw ca baatam bu diis ba xul naaru jaaxal na ma asaddu xarra law kaanu yafqahuuna paa yi fa la ñuy toog rek booy bu romb rek mun a jarut a jàppale de waa ji day njébar rek ngir bañ rek ñu topp sayyiduna Muhammad fu ñu waxee rek yàlla jaar ca beneen côté ba ne ay bandi la de xamuñu dara ci nabi mbaax rek la am waa man man dafa am lu ma yéem ci Seydi Hadj Malick ak njabootam Hadj Malick yéem na ma lool. ku ci nekk liggéeyal na yàlla ba am tur bu bokkut ak tur biñ biñ la tudd man loolu yéem na ma lool Seydi Hadj Malick tudd na Maodo tudd na Malick tudd na euh, Njool Faama tur yu bëree bëree bëree bëri ah, boo ñëwee sëñ Babacar bu ñu nee xalifa rek xalifa rek kenn du la xalifa yóbbu leen ci waaw hmm? demal ci alxaaji Mansour ba xaw borom ñaari kaala yeeg borom ñaari kurus yeeg gis nga yañ ca teg yëpp alxaaji Abdul Aziz Si Dabba borom bijjaaw bu rafet ba hmm? lu ne ngay dégg ci moom boo ñëwee ci sëñ Habib ñu ne borom médaille demal ci sëriñ Seex ñu ne la borom ruq bi foo laajtee borom ruq bi rekk kenn kenn duñ la yóbbu fenn ci waaw nga jëm ca sëriñ Seex ah boo waxee borom daara yi ñu ne sëñ Mansour a ngor nga ne al amir ñu ne yóbbu leen ko Tiwaawan ki ñu wóolu ko la de nga ne ñàkk caaxaan ñu ne sëriñ Bay Mansour man loolu yéem na ma lool ci njabootu Tiwaawan njool fuuta léegi laa ko wax fa ma jóge nee naa yéen tiijaan ñi ñun nañu maan waxin la waxin la dafa am lu ma bëgg a wax moo tax ma jaaree noonu bu buñ ko déggee buñ ko xëccoo dëgg dëgg appel bi am nañu ko moom nekk laa yéen yee ko moom yéene nañ leen ko nekk wax dëgg yàlla te appel bi ni muy neexee ñoo ko moom wax dëgg yàlla nag taat gàmmu ba noppi di ngeen taat maam bu ko xëccoo sa yoon nekku njaasaana ko moom seen yëf yi dëgg yàlla yéen ñun ngir yàlla nañ ko nangul sëriñ Touba màggal moo ko moom te ñëpp deeñ dem dëgg dëgg rëy na nag waaye ngeen nangul ñu gàmmu Seydul Xaaji Maalik waaye def leen nii waaye waaye bakk rek dara ma mhm. waaw bu leen ko xëccoo yéen it kaay leen bokk rek ku ci nekk na ñëw bokk rek waaye gàmmu moom Maodo dëgg dëgg nag moo ko fi indi 1902 la Maodo njëkk gàmm ànd ak Baye Rawxaan Ngom fekk kenn ñemewul gàmm man nag damay tëj xam nga lu tax sëriñ bi dafa ne bu dee 30 minutes rek man damay jàpp waxu kilifa waaw dafa wax wax ji ba pare ne bu dee 30 minutes rek waaw waaw man damay déglu de. ah déedéet bu dee 30 minutes firiwu ma du ma ko firi maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar xaji maam yow yërëm naa la lool sonn nga torop wax dëgg yàlla sonn nga torop wutal wutal ñaari soxla waaw man feeg 10 ans billaay naa wut ñaar feeg 10 ans billaay feeg fukki fukki at wóor na yàlla naa wut ñaar billahi foofu ku ma ci baare feeg vingt ans wóor na yàlla naa wut man caaxaanuma sax maam wutal yàlla def lu ne ci ñun wax dëgg yàlla tey bi ñu déggantee ma wax ko jotaay bele ndake jotaay ba wax dëgg yàlla maa ngi ci xeeboon sama bopp ndake man rek lañu doon xaar waaw léeg-léeg damay xeeb sama bopp man xaw ma lu koy waral ma ne tëll rek gaa yi di ñëw ma xaw a réer ma ne ku ñuy dogaale séeréer bu sant mbay lii di jaru ko woon wax dëgg yàlla ndaka ñépp fa tabaarakallaahu rek sanga bi xam naa loolu la yëg mu ne ma boo noppee rek demal foofu ma ne foofu bu teelee jeex naa fi jaar ndax imaam yuusufa gay jamil mii imaam yuusuf li sang bi wax ci moom mooy li am ni mu mel nii nii la mel nii mu mel nii nii la mel gis nga booy mel-mel lu noo melu bi say ñëw nga ese dangay fexe mel ni nga mel bañ a mel-mel lu noo melu boo ko defee rek bisay ñëw rek nga mel noo mel su ko defee ñépp nag xam sa kaw yeeku sutura te moom mii nii mu mel rek nii la mel fa tabaarakallaahu muy nit ku baax di nit ku am solo di nit ku yéewén di nit ku tabaarkalla tabaarkalla yaru lool nekk ba àgg ca lool sëriñ imaam yuusufa géy ñoo ngi lay nuyu bu baax yokk say mbokk yépp ziyaar la jox la sa wàccuwaay ñaanal la yàlla yàlla na la yàlla defal jàmm sëñ Mansour mii nekk ku baax la te xam na xam naa ni xam nga loolu Mansour ku la jàppale ci bis bi la man sax at fii mu toog nii rek laa koy seen mu toog takk naa ko ay at yu bëri ba ñuy nekk ca rukk ba ba nii ñu génnee fii takk naa ko ay at yu bari nii muy toogee nii rek nii lay toogee wa man Mansour ñoo ngi lay nuyu di la ziyaar jox la sa wàccuwaay Mansour man huwa min mawlaahu Mansour fa tabaarakallaahu sa turondoo nee na bàyyil ma yéeg ma mel nii nga bëgg a mel fa tabaarakallaahu nii nga mel nii ba noppi laa bëgg a mel tabaarakallaahu muy nit ku baax waaw mel naa noonu tabaarakallaah maam yal na yàlla fay la di nuyu xaaji Omar Diop mii yore Cherif Dabakh TV di nit ku baax fa tabaarakallaahu di nit ku am solo di nit kuy jàppale télé bi ci muy def yal la yàlla fay ci barke Sayyiduna Muhammad ndax ni ko Chérif waxee moos nekk inal umuru bi xawaatimiha te ñu ngi ci comme ñaan doo ci nag nag ñu teewlu ñaan gi waaye mbay ñu ngi lay sant bu baax di sant imaam Youssou Gueye bi nga xam yàlla mu ngi jaarale yiw gi ci moom mu fàggul ñu ngi koy sant bu baax moom suñu kilifa la suñu lépp la ni nga ko waxee rek noonu la ndax it euh, sang bi moo nu boole ak moom mu jàpp suñu loxo yóbbu ci sang bi mu jox ñu tariqa bi Sidi Ahmed si Jamil ba mu yeggalee it mu dénk ñu ko te boobu ba léegi tabaarakallaahu mu ngi rafetal bu yàggul rek la jël doomam teg ko sama loxo ni ko na jëli tariqa bi man it ma yóbbu ko mu jëli tariqa ba Tiwaawan muy Ahmed sëriñ bi tamit waxaat ma même chose ni Ahmed ma nga déglu Mansour kon nag tabaarakallaahu njukkal guñ ko amel rek mooy lu mu yëngu rek ñun ñu dem ci ba jeex rek waaw naa xam ne bisu góor gi bisu yàlla dogalee góor gi tànkam waaye ba mu yegg si bi boobaat naa xam ne fi mu nu tegoon ñoo nga fa fa tabaarakallaahu ndax si kilifteef rek la ñuy wëy kon ñu jox ko mu ñaan ndax yaakaar naa ne santoon na ñëpp te fi ñu toll ni moo fi Sidi Ahmed moo fi Chérif Ibrahima Haydara kon moom mooy ñaan mooy ñaan mooy def lépp su ko defee rek ngeen teewlu imaam ñaan ba déwén nag jàmm incha allah yàlla bu ko kenn wuute yàlla bu ko kenn wuute yàlla bu ko kenn wuute ci barke Seydil Wujudi wa alami zuhur macha allah kon nag. dañuy ñaan te ñaana laale sunu waajur bi di Baye Ablaye Guèye uh, alxuraan ak sëriñ Modou Niang ngi leen di sant di leen ñaanal ñoom itamit ndax seen taxawaay yàgg na ci kii yi ci këram lañ koy jële chaque année waaw daanaka sunu yu bopp la duñu sax tàggoo daanaka ñëw rek jël yàlla yàlla guddal seen fan yokk seen wér dolli seen sutura ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defee ñu bokk jàng fatiha salaatul fatihi def ko xadi yonent bi sallallahu alayhi wa ñu jiita dugal ci ajo yi yëpp nag waaw ajo yi yëpp ñu dugal ko ci yàlla nangul ñu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma inna nasaluka lisaanan raatiban bi dikrika wa xalban muncaman bi shukrika wa badanan cayinan layinan bi taacatika wa axtinaa maca dalika maa laa caynu ra'at wala udnu samicat wala xatara calaa qalbi basharin kamaa axbara bihi rasuluka sallallahu alayhi wa sallam xasba maa calimtahu bicilmika wa axninaa bilaa sababin waj'alna sababa alxinaa li awliyaa'ika wa barzaxan baynahum wa bayna ahdaa'ik innaka ala kulli shay'in qadir allahuma inna nasaluka imaanan daa'iman wa nasaluka xalban xaashi'an wa nasaluka ilman naafi'an wa nasaluka yaqiinan saadiqan wa nasaluka diinan qayiman wa nasaluka caafiyatan min kulli baliyatin wa nasaluka tamaama alcaafiya wa nasaluka dawaama alcaafiya wa nasaluka sukra ala alcaafiya wa nasaluka xinna can innaas allahuma ina nasaluka tawbata kaamilata walmaxfirata saamilata walmahabata kaamilata aljaamiata walxulata alshaafiyata walmaarifata alwaasiata walanwaara saatiyata wasawaata alxaaimata walxujjata baarixata wa darajata alcaaliyata wa fukka widaaqana min almacsiyati wa ricaanana min alnicmati bimawci biminati innaka ala kulli cheyin qadir wa xurmata allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatixi lima uxliq